feek ma ngay texe di am fajuk aajo ka nga xam ne dafa soxlawoo bi duwaayi ci ñaan la yow sunu borom fajuk aajo te ku la ñaan fajuk aajo te darajaay Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ko may fajuk aajo feek jaam ba ma ngay soxlawoo fajuk aajo te di la ñaan fajuk aajo te di ko may fajuk aajo yow sunu borom te loolu mooy faral di am ba dinay tukki yalla boo dakkal di wàcc teranga ak jàmm ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaw fiyal mariidu ak fiyek yaa ngi jàmmal aji tawat ja bistisfaa ci saafara tawatam ci mu ñaan nga saafaral ko tawatam ci darajaay muhammad alayhi salaatu wassalaam te loolu mooy faral di am ba dinay tukki fiyek looloo ngi am yalla boo dakkal di wàcc teranga ak ci seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam lii nag wax nañ ne sëriñ bee ko ci dolli ñenn ñi wax ne sëriñ Mouhamadou Lamine Diop moo ko ci dolli wali naasimi ñeel na aji way ji di sëriñ Touba ay dan ba tey saadahu laahu yal na ko yàlla dolli sifaa an ak saafara wa faydan ak baawaani may yaa man yow julit bi nga xam ne yaroo mu dafa kulli daayi yaa ngi sàkk sunu boroom dàqal bépp tawat falaatu faarix matlaba sifaahi bul di tàqalikook téere bii di matlabu sifaahi wadum alayhi na nga saxoo di ko jàng fil masaa'i ci guddiya wa sabaax ak subaya wax lisan sellal ko tanal ko ndey dinga am sifaan ak saafara wa falaa ak ak texe ca la nga bëgg bisni rabbinaa ci nameel ak sunu boroom wa jaahil Mustafa ak ci darajaay ku ñu tànn ka di salla alayhi rabbuna kamastafa yal na ko yàlla dolli teraanga ak jàmm ko tànne subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdu lillahi rabbil aalamiina loolu mooy téeréeb matlabu sifaa sëriñ Tuubaa nee na képp koy jàng ñaan ca fajug aajo ci sa yalla yàlla dina la may fajug aajo ci satawat tawat ak xeeti tawat bu mu mën di doon ci darajaay Muhammad alayhi salaatu wa salaam sëriñ bi nee na yàlla dina ko saafara.